wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxaabatihi qurril mayamin wa ala taabixin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma baad ayyuha al ixwa al mushaahiduuna al kiraam وأقوات المشاهدات أيها الأحبة في الله أينما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di topp seen programme diine ji fii ci ay Africa TV dellu siwaat nañu di leen nuyu nuyoo bi gën a tedd ci mboolem nuyoo yi di ñaan yàlla nuyoo boobu li mu ëmb ci jàmm yépp di ko dox ci yërmande ak barke te ñett yooyu jaam bu nekk soxla na ko ci dundam ñu ngi ñaan yàlla yal nañu ko yàlla boole defal di ñaanal nag boroom kër gi Muhammadul Amin fa tabaarakallaahu ak mboolem staff bi nekk ci gannaawam rawatina directeur bi nga xam ne moo amee programme télévision bi di Sëriñ Moodu fa tabaarakallaahu ak mboolem journaliste yi mboolem staff bi ba ci driver yi ak kilina yi yal na yàlla bokk dimbale ñépp fa tabaarakallaahu yal na yàlla faj xaajooy ñëpp waaye yal na yàlla barke liggéey bi ba yóbbu ko fu gën a kawe suñu njort yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal mbokk yi tey nag fa tabaarakallaahu ñu ngi fas yéene jàng dund xaamir ibnu abdullah at tamimi rahimahullah nga xam ni su ñuy wax dëddu àdduna walla suur àdduna jël yàlla mu def ko sa soxla yittiwoo allaaxira bu baax bu ñuy lim juróom-ñetti nit ñi nga xam ne ñoo ci féete kaw ñoo gën dëddu àdduna ci kaw suuf gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñuy lim juróom-ñett yooyu dinañ fekk Amir ibnu Abdullah at-Tamimi fa tabarakallahu mu nekk ca kanam mbokk ndax moom fa laqad kaana zahadan bima fi aydi naas raqaaban bima inda allah muridan an ad-dunya wa zinatiha muqbilan ala allahi wa mardaati mbokk yi xaamir mii ñuy waxtaane nga xam ne kenn ku nekk ci ñun war na seetaat dundam xool dundu xaamir ibnu abdullah kenn ku ne ci ñun fa tabaarakallahu bu càmbari dundam càmbar dundu taabii yu bii ñuy waxtaane dina la wóor ne am na loo war a yokkaat am na góorgóorlu goo war a def fa tabaarakallaahu ci sa dund te mooy jukkee ko buddee ko ci càggante fa tabaarakallaahu jéem a mbaax jé jéem a fa tabaarakallaahu ak kawe mbokk yi amir ibnu abdullah booy seet ñi gën a dëddu àdduna gën a suur àdduna di fekk ne taabii yu bii ci ñooñu la bokk nekkoon na ki gëna a dëddu àdduna waaye tamit amul woon benn soxla ci teraanga ji nekk ci loxo nit ñi suuroon na àdduna këll soxlawu fi woon dara waaye yemut ci loolu teraanga gi nekk ci loxo nit ñi daf ko suur ci dundam mosul soxla dara ci nit ñi kaana sahadan bi ma fi aydi naas te xam nga nit ñi soo bëggee amat ak ñoom jàmm ci àdduna dangay faxe bàyyee leen li ñu am nit ñi soo leen bàyyee li ñu am amat ñépp jàmm nit ñi boo leen bàyyee seen alal yi bàyyee leen seen jabar yi bàyyee leen seen doom yi bàyyee leen seen kër yi doo gaaw a am ak kenn problème benn saxaaba dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa na ko dama bëgg nga tegtal ma loo xam ne bu ma ko defee yàlla bëgg ma waaye nit ñi tam bëgg ma laaj bu am solo la mbokk yi dulluni ala amalin isaa amiltuhu ahabani llaahu wa ahabani nnaas fa qaala alayhi salaatu wa salaam izhad fi dunya yuhibbuka llah wazhad bima fi aydi nnaas yuhibbuka nnaas waa ji dafa ñëw ci yonent bi na ko dama bëgg nga tegtal ma loo xam ne bu ma ko defee yàlla sopp ma tegtal ma loo xam ne bu ma ko defee bokk ci soppe yàlla yi waaye bëgg naa nga wax ma loo xam ne bu ma ko defee tam am ak nit ñépp jàmm ñépp bëgg ma duma am ak kenn benn problème sayduna muhammad na ko soo bëggee yàlla sopp la da wan gannaaw àdduna da ngay suur àdduna ak li nekk ci biiram jël yàlla def ko mu nekk sa soxla bul ut àdduna utal yàlla boo wanee gannaaw àdduna ak li nekk ci biiram jublu yàlla yàlla boole la ci soppeem yi te boo xasee am yàlla da ngay am yàlla ba pare amaale àdduna wallaay ndeysaan moo tax mu ne ko soo bëggee jubóog yàlla xaritoog moom mu dem ba boole la ci soppeem yi dangay wan gannaaw àdduna faxel ba bu la àdduna nax wanal gannaaw àdduna suural àdduna ak li nekk ci biiram xam ne àdduna am amam yàggut am amam saxut te lum la naxee lu ne ba nga ñàkk yàlla loola dina xëy bis bàyyi la fi dem moo tax mu ne ko soo bëggee yàlla sopp la da ngay wan gannaaw àdduna jublu ci santaane yàlla yi rek di wut ngërëmam di ko jaamu sax ci lim digle di ko def bàyyi lim tere boo demee ba am yàlla da ngay boole am yàlla ba pare am àdduna wallaay ndeysaan mu ne ko nu may def nag ba nit ñi bëgg ma ma am ak ñépp jàmm mu ne ko soo bëggee nit ñi bëgg la nga am ak ñépp jàmm da ngay bàyyee nit ñi li ñu am nit ñi ku leen bàyyee seen am am yi rekk ñu may la jàmm nit ñi boo leen bàyyee li ñu am soxlaalu leen leen dara ñu may la jàmm moo tax xaami bi mu bëggee digganteem ak yàlla jakk mu bokk ci soppe yàlla yi dafa njëkk liggéey digganteem ak boroomam ba pare nag liggéey digganteem ak jaami yàlla yi faxe ba suur àdduna wan gannaaw teraanga bi nekk ci loxo nit ñi xam nga nit ñi soo gisee ñu lay jéppi di la móolu danga leen a xatal ci seen biir kër yi rekk walla nga soxla dërëm yi ñu am waaye boo soxlaalul kenn dara di di amal sa bopp loo ñàkk lu ne ñaan ko yàlla doo gaaw a am ak kenn problème ci àdduna hmm? moo tax Amir bi mu paree ci digganteem ak boroomam li mu njëkk a def mooy faxe ba bàyyee nit ñi teraanga gi nekk ci seen loxo sahaadan bi ma fi aydi naas raqiban bi ma inda dafa suur wërsëg yu nekk ci loxo nit ñi xemem li nekk ci loxo yàlla li nekk ci loxo nit ñi daf ko wan gannaaw amu ci soxla lan la amir soxla mooy li nekk ci loxo yàlla teraanga bi nekk ci loxo yàlla te ba ca gën a rëy mooy aljana muqi rekk suur wërsëgu nit ñi xemem yàlla mu'ridan ani dunya wa zinatiha mu wan gannaaw nag àdduna ak taar bi nekk ci biir àdduna yépp xaamir suur ko ne man àdduna dara doyuma fi yàlla laa soxla ak tiranga ji nekk ci loxoom moo tax nit ñi ñett lañ dafa am ku ñuy tuddee raaqibun fillah wa raqibun bima inda allah wa raqibun an illah am na ci nit ñi nit koo xam ni moom yàlla rek lay wut wutut leneen moom yàlla rek lay wut allahu akbar te ku xas am yàlla nag ñàkkatoo dara am na ñoo xam ni yàlla rekk mooy seen soxla moom lañuy wër di ko wut guddi ak bëccëg amuñu benn soxla yàlla rekk lañuy wut waaye mu am ñoo xam ni ñoom utuñu yàlla waaye tiraanga bi nekk ci loxo yàlla lañuy ñuy ut mooy ñoom aljana moo tax ñuy jaamu yàlla ñoom teraanga ji nekk ci loxo yàlla moom lañ soxla moo tax ñuy rukkoo di sujjóot di or weeru koor mu am koo xam ne nag moom soxlawul yàlla soxlawut li nekk ci loxo yàlla boobu nag mooy bi yées moo tax Amir tey suur li nekk ci loxo nit ñi xemem li nekk ci loxo boromam xemem yàlla ak li nekk ci loxo boromam wan gannaaw nag àdduna ak taaru àdduna bi yépp nag dëkkuwaayu rafet yi lekk gu neex gi waruwaay lépp mu xëy wan ko gannaaw jël yàlla def ko mu nekk soxlaam muqbilan ala allahi wa mardaati mu jublu yàlla rek di wut nag yàlla di wut ngërëmam di wut yàlla waaye di wut ngërëmam moo tax bi mu bëggee xam boroomam dëgg ba dajeeg abu muusa al ashari boroom xam-xam bu mag boobu ci la xaamir nag wàcc sukk ci ronam nag jàng ci ronam téere yàlla bi muy alquranul karim ba mel ni comme ni ko yàlla wàccee woon ci dënnu yunti yàlla Muhammad bi muy jàng alquran ci loxo abu musa al ashari dafa mel ni comme ni jibril doon wàccee alquran di ko jële ci yàlla di ko wàccee ci dënnu yunti yàlla Muhammad nun la xamir doon jàngee alquranul karim ci ron abu musa al ashari فعكس عنه كتاب الله رتبا طريا كما نزل على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم mu jàng ci moom ahadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falamma ktamala ma arada min al ilmi jaala ayaatahu aqsaaman salaasa bi xaamir demee ba dajale lim bëggoon na dajale ci xam-xam yépp ba peeg ko dafa jël dundam bi nag xaaj ko ci ñetti xaaj jaala ayaatahu aqsaaman salaasatan mu jël dundam nag xaaj ko ci ñetti xaaj fa satrun fi xalaqaati dikri yuqri'u fihi nnaasa alqur'ana fi masjidi basra wa satrun fi qalawaati alibada yantasibu fihi qaa'iman bayna yaday laahi xatta takilla qadama wa satrun fi saati aljihaad yasillu fihi sayfahu qaasiyan fi sabilillah walam yatruk fi ayaatihi mawdian li cheyin xayri salika abadan hatta du'iya bi abidil basrati wa zahidiha ci lii la la tabax dundam mooy bi mu jàngee ba am xam-xam ba peek li mu war a xam yépp ci xam-xamu alquran ak sharia dafa xaaj dundam bi ñetti xaaj benn xaaj bi mu def ko pour jàng alquranul karim ak jàngal nit ñi alquranul kërim beneen kaaj bi mu def ko pour di ci wéetal boromam di ci jaamu yàlla di ci rukkooxal yàlla di ci sujjóotal yàlla di ci def ay naafela ba daan naafe la ba tànk yi sàdd tànk yi néewi ba du ko mën a delloo jiwaat këram allahu akbar ñetteelu xaaj bi mu def ko ci jihaat ci yoonu yàlla dundam ci ñett yooyu la ko tabax mësu ko génn benn yoon bu nekkul di jàng alquran ba di jàngale alquran kon mu ngi wéetal boroomam mu ngi ci xalwaam di wéetal yàlla walla bu nekkul ci loolu gàdd na jaasim dem pour siggil islaam dundam yépp ci ñett yooyu la ko tabax boo ko fekkul ci bii di ko fekk ci bi ci des amul leneen loo koy fekk lu dul loolu mosul sànk benn waxtu ci dundam lépp ci yàlla la ko def ba mu jeex boo ko fekkul muy jàngale alquran di ko fekk ci xalwa wala nga fekk ko ci jihaad bi moo tax benn waay nee na ànd naag xaamir ñuy dem ci benn xare bi ñu doxee ba jant bi so ñu wàccee suñ gawar yi ne nañ fanaan fii ba suba ñu continuer tukki bi waa ji na bi ñu tëddee ba xaaju guddi ba ñépp këf nelaw di nelaw dama gis xaamir rocceeku ci biir soldaari jullit ñi dem ba ci fasam wi mu génne ñax ngooñ mu bari jox fas wi jël ndox may ko yokk buum gi mu gën a gudd mu wan gannaaw fas wi nag dox nag dugg ci biir àll bi nag mu ne man dey kii dina ko topp seet lan lay def ci àll bu lëndëm bii ci xaaju guddi gi moo tax mu ne wallahi la atba'anna wala ansuranna maa yasnahu fi axmaaqi alqaydati fi hadihi layla kii de dina ko topp maseet lan lay def ci biir forest bi ci biir àll bu lëndëm bi ñépp di nelaw moom mu ne ñokket jog dugg àll xaaral ma topp ko ba seet lan lay def ci biir àll bi mu ne ma topp xaamir ci biir lëndëm googu muy dox ci biir bi di dox ci biir àll bi di dox ci biir àll bi ba yegg fi garab yi gën a lëndëmee nga xam xam ne ba mu fa duggee kenn gisatu ko dafa réer ci biir garab yi mu ne ma gis ko mu yeesal njàppam dal di taxaw jublu xibla commencé di julli waa ji nee na fama raaytu axsana min salaatihi wala akmala wala axsha waa ji nee na gis naa ko rafet julli ba tàyyi waay mësumaa gis ku rafete julli ni xamir ibnu abdallah mësumaa gis ku rafete rukoo ku rafetalee sujootam ku matalee ay toogaayam comme ni amir ibnu abdallah doon rafetale ay rukoo am ak ay toogaayam suy julli gis naa julli gu rafet ba tàyyi waaye mosuma gis julli gi rafet gu julli gu rafetee noonu mu ne gis naa ku julli di toroxlu jox yàlla cëram ànd ak yar ak teggiin di toroxlu ci biir julli gi waaye cër bi ma gis amir ibnu abdullah jox yàlla bi muy julli mosuma gis kuy toroxloo noonu ci julli ci sa kanam borom allahu akbar nee na ma gis ko muy julli ndeysaan di julli di sëlmal di julli di sëlmal ba julli lam bëggoon a julli yépp ci ci naafe la ba mu paree nag ma gis ko mu dékk ñaari loxoom yi nag yàlla mu ngay ñaan nag yàlla maa ngi ko dégg mu ngay déeyaale ak boroomam am na lu muy tawatal boroomam nee na bokk na ci li ma dégg muy wax mu nga naan ko ilaahi laqad xalaxtani bi amrik wa aqamtani fi balaaya hadihi dunya allah ilahi ilahi laqad xalaxtani bi amrika wa aqamtani fi balaaya hadihi dunya bi machiatika summa qulta li istamsik fa kayfa astamsiku in lam tumsikni bi lutfika yaa qawiyu yaa matin allahu akbar mbokk yi xaamir naafele na ba sëlmal mu ngi dékk boromam nag ñaari loxoom yi di ñaan yàlla di ko tawatal ay soxlaam waa ji ni ne bokk na ci li ma dégg muy déeyaale ak boromam di ko tawatal boromam am na lu ma ci for ñu ne ko loo ci dégg mu ne dégg naa mu ngay wax naan yow suma borom ey yow yàlla yow de yaa ma bind te kenn fekkewut yaa ma bind man xaamir yow yàlla te kenn dimbalewut la yow nag yaa ma indi ci këru àdduna këru nattu gii yaa ma fi indi ci sa coobare ci sa bëgg-bëgg du bëgg-bëggu kenn moo tax nga indi ma fi yow la neex nga bind ma kenn fekkewut nga indi ma cëppeel ma ci këru àdduna bii kër gi nga xam ne këru nattu la yaa ma fi indi nga indi ma fi ba pare nag na ma xaamir téyel sa bopp faxeel ba bu fi laal lu ma neexut ah yow yàlla man nan laay mën a téye suma bopp ci bànneexu àdduna bii wër ma nan laa ciy téye suma bopp bu fekkee ne téyewuloo ma yow yàlla ci sa yërmande boo ma dimbalewu téye ma nan laay mën a téye suma bopp ba mucc ci bànneexu àdduna walla mucc ci seytaane yàlla yow rekk yaa ma mën a dimbale téye ma maa lay ñaan nga téye ma ci sa kàttan bi yow mi nga xam ne yaa féetee kaw kàttan lépp lu dul yow soo ma téyewut ndax bàyyee ma suma bopp yow yàlla danaa alaku lii la xaamir wax boromam yemu ca nee na ko ilaahi innaka taalamu annahu law kaanat fi hadihi dunya bima fiha summa tulibat minni mardatan laka la wahabtuha li taalibiha إلهي إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة وردني بكل قضاء فما أبالي مع حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه الله أكبر mbokk yi xaamir nee na yàlla yow buur yàlla yow dey xam nga ne àdduna bii ak li nekk ci biiram yépp ci teraanga su fekkoon dañ ko teg ci suma loxo bi ne suma ma joxee loolu dinaa am sa ngërëm yow yàlla kon dinaa jël àdduna boobu nekk ci sunu loxo ak li nekk ci biiram yépp joxe ko ba mu jeex tàkk pour ma am sa ngërëm ndax am sa ngërëm moo ma gënal àdduna ak li nekk ci biiram allahu akbar su fekkoon ne àdduna bi li fi nekk ci ay taax ay waruwaay li fi nekk ci alal li fi nekk ci wurus lépp dañ ko boole woon na ma am yaa ko moom ma téye ko ñu ne ma lii nag yaa ko moom waaye boo ko joxee am ngërëmu yàlla xamir nee na yàlla danaa jël loolu joxe ko ba mu jeex takk ngir am sa ngërëm ndax am sa ngërëm moo ma gënal àdduna ak li nekk ci biiram allahu akbar seetal li ko yàlla jaral àdduna ak li nekk ci biiram buñ la noon joxe ko te am ngërëmu yàlla Amir nee na danaa ko joxe ba mu jeex pour am ngërëmu yàlla rekk ëppal na ma loolu Amir nee na yàlla yow de xam nga ne man xaamir bëgg naa la mbugeel boo xam ne yow yàlla mbugeel boobu dafa tax bépp musiba bépp natt boo wàccee ci suma kaw dina fi fekk mbugeel goo xam ne dana yombal natt boobu ba dootul nekkati tiis ci suma xol bi waaye mbugeel bi ma la bugg day dàq tiis woowu ba dootuma yëg tiis wi bànneex laay mujj yëg allahu akbar yàlla bëgg naa la mbëggeel boo xam ne natt boo ma mën a teg ci natt yi àdduna bi ak lu métti metti dina fi fekk mbëggeel bu ko mën a dékku boo xam ne duma ma yëg ne sax teg nga ma natt walla teg nga ma tiis allahu akbar seetal kooku ni mu bëggee boromam bëgg naa la mbëggeel boo xam ne mënoo maa teg nattu ma yëg ne liñ ma teg métti na ndax mbëggeel bi ma la bëgg yow yàlla moo féetee kaw bépp méttit walla nattu boo ma teg fekk na fi mbëggeel bu ko ëpp boo xam ne lu lu nattu ba rëy rëy lu tiis wa rëy rëy dina fi fekk mbugeel bu ko mën a cuub ba dootul nekkati tiis day fekk day far nekk na day far day far nekk bànneex ci ma allahu akbar mbuggeel bi ma la bugg mu ne ko mu ne ko tax na tiis woo ma mën a tegit natt boo ma mën a tegit du jafe ci man day yomb ndax mbuggeel bi ma la bugg li ma jaral yow yàlla fi ma la teg tax na natt boo ma mën a tegit day yombu allahu akbar moom la mawlaana cheikh al islaam wa barakatul anam doon wax fajal fuaadi ka saxrin wala tusiru ka baani yàlla yal na nga def suma xol bi mu dëgër mën a muñ gëm yàlla dëgër këng ba mel ni aw doj mel ni maawuteen mel ni xeer nga xam ne natt lu mu rëy rëy bu ñëwee fekk fi xol bu gëm yàlla fees del ak ngëm ak muñ bu mën a dékku natt yooyu ak tiis yooyu loolu la Baay Ñas wax boromam yal na ñu ko yàlla fayal suñu maam Seydi Hadji Malick ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla ne ko loo bëgg mu ne ko wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yàlla yàlla yàlla na dimbale ba bépp loo àtte ci suma kaw nga may ma xol boo xam ne dana ca kontaan ànd ca àtte yooyu yal nag ma may xol boo xam ne lépp loo àtte ci man rek ma nangu ko lépp loo dogal ci man rek man si maalik ma nangul la ko maa ngi lay ñaan nga may ma xol boo xam ne bépp dogal boo dogal ci suma kaw rek ne Malick dana ca jaar lu métti métti yal nag ma may xol bu ko mën a dékku ci muñ ak gëm yàlla ba caalit walla ma weddi la yal na bokk ci ñuy ànd ci sa dogal yi di ànd ci sa atte yi yow yàlla wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yu baax yépp ñoo bokk benn waxtu seetal nit yàlla yi seen wax yi yépp benn la xaamir nee na yàlla bugg naa la mbugeel boo xam ne bépp tiis boo teg ci suma kaw dina fekk ci suma xol bi mbugeel bu ko mën a dékku boo xam ne loola dootul nekkati tiis day mujj yomb ci man nekk bànneex yàlla mbugeel gi ma la bëggu dem na ba toll foo xam ne xëyee bànneex ak xëyee naqar ñaar yëpp a yem ci man bu ma ci mun a xëyee rek gërëm naa gannaaw ci yow la bàyyee ko allahu akbar su ma xëyee ak wér sant su ma xëyee ak wére di sant su ma xëyee ak am sant su ma xëyee ak ñàkk sant gannaaw am ak ñàkk yépp ci sa loxo lay bàyyeekoo bu ci mën a ñëw rekk gërëm naa ko faaleetuma xëy ak am faaleetuma gont ak ñàkk ñaar yëpp a yem ci man waa ji na nii la xamir fanaanee guddi keroog ci biir àll bu lëndëm boobu di naafele di sëlmal di naafele di sëlmal boole ko di ñaan boroomam nee na man maan ci gannaawam di ko xool waaye léegoo léeg gëmmintu jàpp ma ba ma nelaw léegoo léeg ma këf nelaw léegoo-léeg ma yeewu waaye su ma yeewoo benn ma fekk ko mu ngi rukkoo walla ma fekk ko mu ngi sujjóot baa mu ngi tàllal loxoom di ñaan guddi gi yépp gisuma fu xaamir tëddee gëmm bëtam pour nelaw guddi gi yépp daf ko jox boromam ba buur set allahu akbar léegoo-léeg ma yeew fekkaat ku muy julli léegoo-léeg ma këf nelaw nelaw tuuti su ma yeewaatee fekk ko mu ngi julli waa ji na ci lii la xaamir nekk ba ñu ne asalaatu xayrun min an nawmi nee na falamma badda lahul fajru adal maktuba summa aqbala yad'u bi fajar xaree ma gis ko mu julli ñaari rakka fajar mu pare daal di julli ñaari rakka suba ba mu sëlmalee nag for naa ci lim doon wax ak boroomam ay baat bi mu jullee saba fajar julli suba ba sëlmal dafa tàllalaat loxoom yàlla mu ngi naan ko allahumma haa qad aqbala subhu wattafiqa annaasu yaqduuna wa yaruuxuuna yabtaquuna min fadlik wa inna likulli minhum xaajatan wa inna xaajata xaamirin xindaka an taxfira lahu allahu akbar allahumma inni sa'altuka salaasan faataytani isnatayni wa manaxtani waxidatan allahumma faatiniha xata acbudaka kama uxibu wa uridu summa nahada min majlisihi fa waqaa basaruhu alayya fa alima bi makaani minhu fi tilka leyla fa jasia li dalika ashadd aljasa wa qaala li araaka araaka kunta tarqubuni hadihi leyla fa qultu naam fa qaala ustur maa raayta minni sataraka allahu ustur maa raayta minni satara allahu aleyk mbokk yi xaamir bi mu jullee ñaari rakka fajar ba sëlmal jóg julli ñaari rakk suba ba sëlmal dafa tàllalaat ñaari loxoom yi boroomam di ko ñaan nañ déglu lan la xaamir wax yàlla xaamir ne na ko ey yow buur yàlla ah fu mu ne day buur set na buur set na guddi gi dem na suba gi ñëw na buur set na nit ñi nag xëy nañu wàcc nañ seen lal yi ñi lee ngi xëy uti am ñi a ngi gont pour uti luñ am ku ci ne yaa ngi daw dem fa nga yaakaaree am nga wuti fa yàlla bur set na sa jaam yi yeewu nañ ñépp jóg nañ ku ci ne nag yaa ngi kër-këri di wuti am maçon yeeg fita yeeg businessman yeeg jàngalekat yéeg sàmmkat yéeg nappkat yéeg baykat yeeg ñépp ku ni xëy nga di kër-këri pour wuti loo am ñépp jot nañ ku ci ne nag am na soxla boppam am na koo xam ne jabaram dafa am doom jóg na lum ngénte ji lay wuti am na ku bëgg a takk lum ngoroo lay ut am na ku bëgg kër am na ku am kër daf ne ngéej lu ko tabaxee am na koo xam ne dépassé ko jaaxal ku ci ne ak sa soxla wa inna li kulli minhum xaajatan mel ni yàlla def ko ne yow luy sa soxla yow nit ñi xëy nañ ci seen lal génn nañ kër yi ñii a ngi jublu boor bi ñii jublu boor bi ku ci ne am na foo jublu foo yaakaar am xam naa ni nit ñi li ñuy bari bari ku ci ne ak sa soxla bopp ku ci ne ak li la tere nelaw ñépp ñi xëy di wuti nag yow nag lan mooy sa soxla xaamir na yàlla man benn soxla rekk laa am benn kese moo ma tere nelaw mooy ñaan la nga jéggal ma sumay bàkkaar rek loolu rekk laa soxla ci yow yow yàlla ñaanuma la wërsëg ñaanuma la wér ñaanuma la fan gudd ñaanuma la dara wa inna xaajata aamirin indaka an taxfira law su soxla daal ci yow mooy ñaan la nga jéggal ma sumay bàkkaar lii rekk laa soxla may ma njéggal ba bu may taseeg yow fekk ma set wecc benn tilim duma ma taq benn bàkkaar du ko yóbbaale bis bi may dajeeg yow lii rekk laa soxla soo ma ko mayee bu fan wi guddul sax baax na su àndul la wër sax sax baax na nang ma jéggal rekk sa njéggal rekk laa soxla soxlawu ma leneen cay bu doon ñun allahu akbar xamir ne yàlla yow suma borom ñaan naa la ñetti yëf ñett nga may ma ñaar yi xañ ma benn bi ay yàlla benn bi ma xañ noonu ay yàlla ñaan naa la nga may ma ko rek ndax boo ma ko mayee ci laa lay gën a mën a jaamu jaamu gi ma gi ma la bëgg a jaamu ci laa la koy gën a mën a defal allahu akbar yàlla ñaan naa la ñett nga may ma ñaar yi xañ ma benn bi benn bi ma xañ nag ma dëkk di la ko ñaan nga tëg yow yàlla ne doo ko may boobu laa bëgg nag nga far may ma ko ndax boo ma ko mayee jaamu gi ma la bëgg a jaamu ak ni ma la bëggee jaamu su boobaa ci laa mën a jaamoo ni ma la bëggee jaamu ba suma xol bi sedd nag dal di ne ñokkeet jog fim mu gëstoo rek daldi gis benn waay bu toog ci gannaawam def nii di ko seetaan rek di ko déglu guddi gi yépp waa daan ci gannaawam di ko seetaan di ko déglu rek mu sëlmal rek gestu gis nit ku nekk ci gannaawam mu dal tiit nag waaw dal tiit nag ndax xam na ne waa ji gis na ko te moom bëggutoon kenn ci bindee fi yàlla yi teg ko bët bëggutoon kenn ci nit ñi xam li muy def ak boroomam ndax bañ ngistal bañ wanewu moo tax mu dem làquti ji ca biir àll bu lëndëm ba ca biir forêt ba di jaamu yàlla ngir bañ ku ko gis digganteem ak boroomam jaamu gim ciy jaamu bëggul njistal tàbbi ci walewu tàbbi ci muy yàqu moo tax mu làquti ji waaye bi mu gestoo ga gis ne am na nit ku ko gis dafa rus ndeysaan ba pare tiit nag na ko ah araka kunta tarqubu ni layla yow de dafa mel ni dëgg ma nekk di fuuk lu guddi gi maanaa dafa mel ni danga topp suma affaire di ma gëstu di ma seet ba xam ci lan laa fanaan ak lan laa doon def waa ji na ko waawaaw topp naa la bu baax gis naa la itamit li nga fanaanee démb ci guddi yépp dara réeruma ci li nga doon wax ak sa borom sax bari na ci loo xam ne for naa ko dégg naa ko ndeysaan te bëggewu ko woon noonu murus nag tiit na ko lenn rekk laa lay ñaan mu ne ko lan mu ne ko ustur maara ayta minni satara llahu aleyka mu ne ko li nga gis ci man ma fanaan koo def dama bëgg nga suturaal ma sàng ma sutura bu ma mosa weer mukk te boo ma suturaalee yàlla dina la suturaal yooyu tam waa ji na ko foog ma dem ci nit ñi wax leen yow yaay kan ndeke yow nit ñi dañuy ànd ak yow te xamuñu yaay kan nit ñi dañ dëkk ak yow te xamuñu yow yaay kan foog ma weer la nit ñi xam yow yaay kan ñu jox la sa cër xamir na ko suturaal ma suturaal ma te yàlla tax lii rek laa lay ñaan suturaal ma te yàlla tax waa ji ne ko foog ma wax ko lenn rek mooy tax ma suturaal la mu ne ko mooy lan mu ne ko ñett yi nga ñaan sa borom mu may la ñaari yi la benn bi ñett yooyu dinga ma ko wax ma door la sàng malaanu sutura boo ma ko waxut dinaa dem ci nit ñi weer la wax leen yow yaay kan waa ji na ko xamir na ko te nga maa dimbale mu ne ko foog ñett nga ñaan yàlla mu may la ñaar yi xañ la benn bi foog yooyu dinga ma ko wax ma door la suturaal allahu akbar mu ne ko te suma la ko waxul doomu suturaal mu ne ko soo ma waxut ñett yi duma la sàng malaanu sutura ba mu demee ba xam ne pexe amut ndax waa ji na ko soo ma ko waxut ma génn weer la mu ne ko kon nag mën naa la ko wax waaye bi sharti an tu'tiyani ahda allahi wa misaqahu alla tuxbira bi dalika ahadan amir na ko ndegam bu ma la waxul ñett yi doo ma suturaal dinaa la ko wax waaye nag dañuy fasante kóllëre ne ñett yii ma yàlla moom may ma ñaar yi xañ ma benn bi su ma la ko waxee doo ko mos a wax benn bindeef ci kaw suuf soo mënee jaayanteeg man fasanteeg man kóllëre yàlla ñetteel ñu nga garantil ma ni doo ko mos a wax doo ma mos a woor doo mos a wax nit ñi may man may kan bu dee mën nga maa garantil loolu kon dinaa la wax ñett yi ma ñaan yàlla mu may ma ñaar yi xañ ma benn bi waa ji na ko lakka alayya hahdullahi wa misaaquhu allah ufsi laka sirran maa dumta hayyan laka alayya hahdullahi wa misaaqahu allah ufsiya laka sirran maa dumta hayyan waa ji ne ko maa ngi jaayanteeg yow di fasanteeg yow kóllëre yàlla seede suñu kóllëre ak suñu jaayante man maak yow ne duma feeñal sa sekkare féeg yaa ngi dund wax la ko wax nag duma la mos weer féeg yaa ngi dund duma la weer duma wax nit ñi yaay kan féeg yaa ngi dund loolu la ko wax waaye kon su ma demee ba gisatuma la mooy soo demee ba nekkatuloo fi soo demee ba dee dinaa wax nit ñi sa gannaaw yow yaa doon kan ak li ma gis ci yow ak li la yàlla jaral waaye comme dañ ne naa la suturaal bëggoo ku la bëggoo benn jaam ci jaami yàlla yi xamal la dara sa digganteeg sa boroom maa ngi jaayanteeg yow ne dinaa la suturaal fekk yaa ngi dund waaye ker bu ma la gisatut dinaa wax jaami yàlla yi yow yaa doon kan mbokki yi su ngeen bëggee xam yan ñett la xaamir ñaan boroomam yàlla may ko ñaari yi xañ ko benn bi ñett yooyu su ngeen ko bëggee xam na ngeen ñu topp insha allahu taala ci suñ beneen darsu bi ñëw ci kanam ndem soob na yàlla di ngeen mën a bokk nag ci darsu bi ci tuutiri tuutiri tuuwantiri mooy nomba bi ngeen mën a bokkee ci programme bi te mooy two three two three two one three mooy nomba bi ngeen mën a wootee pour mën a bokk si ci programme diine ji incha allah fii ci ay Africa TV kon xaamira nga noonu fa tabaarakallah nga seet ni mu dëddoo àdduna ni mu suuree àdduna ni mu wanee gannaaw àdduna ak li nekk ci biiram jël dundam bi xaaj ko ci ñetti xaaj benn xaaj bi mu jagleel ko alquran beneen xaaj bi mu jagleel ko jaamu yàlla wéet ak boroomam ñetteelu xaaj bi mu def ko ci jihaad ci yoonu yàlla pour dimbale diine mbokk yi ana ñu ñun tey ñu ñi nga xam ne dañ jël suñu àdduna yëpp suñ dund yëpp suñ layf yëpp jox ko àdduna ak li nekk ci biiram di daw rekk pour ut àdduna kër goo xam ne tàmbale ci say maam ba ci say baay ñépp jaar nañ fi daw di ko wut te kenn amu ko ci ba dem yow nga ñëw jël yoon boobu yow it xëy di ko wut gontu di ko wut xataa surtumul maqaabira rek bëqi rek ñu laxas indi ci buntu bàmmeel dugal ci biir suul wallaay ndeysaan moo tax ku ci ne war a càmbaraat dundam jéem a seetaat dund yonent bi càmbar dund saxaaba yi dund ñu baax ñi fexe ba jéem a tabaxaat suñu dund ci dund yu baax yooyu ngir moytu yàqule mu tax tabax dundam ci ñett yooyu ñun nag nañu seet lan lañu jox yàlla lan lañ jox yàlla ci suñu bopp bi ñu xëyee suba ba ngoon jot lan lañ ko ci jox yàlla moo jël ndaare bañ nañ ko ba bu ñuy dem jàkk bi su àjjuma sax dañuy xaar last minute ñu këf basang yiy daw te buur yi àdduna bi ku ci woote rekk waxtu wi ñu la jox balaa yegg si mu ngi lay fekk bunt pale balaa buur bay ñëw nga jiitu ko palaasam toog di ko xaar jaral na la fii ba ngoon nga di ko xaar te buuru àdduna la kese te sax ñi ko dimbali ci mbaaxu yàlla ba mu toog fa yow sa loxo ngi ci biir waaye bu wootee jaral na la yendu suba ba ngoon jot doo tàyyi waaye buñ ne hayya ala salaati hayya ala al falaax last minute ngay dem bu julli gi guddee sax nga commencé tawat di jàmbatu xutba bi dafa yàgg imam bi dafa yàgg julli ki lay jiite ci ci sa digganteeg sa boroom moom nga bëgg mu taf tafee julli gi te trafic bii rekk boo duggoon ci oto driver bi di daw yenn façon daw yi di overtake yenn façon overtake yi di ko ne dray fa wàññil sa tànk dawal nag bàyyil sa xel ci li ngay def te kooku sa bakkanu àdduna rek laa ame mhm. waxuma la kilo la yóbbu ci yàlla nga bëgg mu taf tafee liggéey bi allahu akbar gaa yi bañ nañ ko ba bu naafe la jotee imam bii def taf-taf mooy gën a bari kiliyaan imam bi nga xam ne day julli julli gu baax jox julli gi cër jox julli gi àqam dañu naan dafa yàgg waaw dañuy seeti ñi nga xam ne dañuy taf-tafe julli gi ba sax dañ leen di tuddee imaam yi taf-taf yi waaw kii moom taf tafee julli gi rek ñépp daw nag dem ci moom wallaay ndeysaan moo tax moom mu jël dundam xaaj ko séddale ko ci ñetti xaaj muy lu am solo doomu aadama dafa war a programmer dundam ndax dee a ngi ci kanam di ñëw te du may kenn nga àggali moo tax boo programmé wut sa dund rek lu bari rëcc la waaw foog nga programmer sa dund programme bu baax nag waaw teg ko nag ci programme bu baax waaw loolu am solo la waaw moo tax moom dundam yépp doo ko gis ci leneen lu dul ñett yooyu benn muy jàng alquran ba di ko jàngale walla bu nekkul ci loolu mu ngi wéetal boroomam ba boo ko fekkul ci ñaar yooyu dinga ko fekk ci mu gàdd jaasim dem ca xare ba waaw doo ko fekk mukk ci lu ñàkk fayda pour war na ne la jullit war na programme dundam ba bañ a neenal waxtu walla sànk waxtu ci lu amul njëriñ waaw ndax waxtu dafa cher yàlla bañ na ko ba waat ci waxtu gëñ ci waxtu ci palaas yu bari ci saar yu bari ci alquranul karim yàlla di ci waat wal fajri wal duhaa wal leyli wal asri yii yëpp sunu borom daf ci nekk di gëñ di waat pour gën a dëgëral ak gën laa xamal baaxaayu waxtu pour wan la ne la waxtu kenn du ko sànk kenn du ko sàggane waaw moo tax jullit bi war a programmer dundam bu baax a baax a baax fexe ba def ko ci lu yàlla gërëm bañ a sànk ay waxtum nekk ci dam bi rekk wala liidookaay bi rek walla nekk ci grand place bi di wax lu ñor lu ñorut yooyu yëpp jullit daf ko war a moytu ci dundam ndax waxtu dafa cher waaw waxtu kenn waru ko sànk waaw kon fa tabaarakallaahu yal nañu yàlla fayal amir fay ñi mel ni moom yal nañu yàlla dimbali ba ñu mën a roy ay melokaanam roy dëddu ga dëddu woon àdduna suur ko wan ko gannaaw roy ko ci bëgg yàlla waaye roy ko ci wéetal yàlla roy ko ci yàlla jaral ko lu ne ñu nit yàlla nañu yàlla àgg li ci daraja boobu ndax loolu rekk moo am solo wallaay ndeysaan loolu rekk moo am solo su ko defee ñu ngi sant ñëpp fa tabaarakallaahu di gërëm ñëpp fu ngeen mën a nekk ci kaw suuf di ñu topp di ànd ak ay Africa TV ci ay programme ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm fa tabaarakallaahu waaye di sàkku ci yéen ngeen di ñu ñaanal yàlla di ñaanal li tamit borom kër gi Muhammadul Amin comme ni ma ko waxee woon ñaanal télé bi ñaanal mboolem ñi fi liggéeye ñépp yal na yàlla bokk dimbale ñépp yàlla yóbbu télévision bi fu gën a kawe suñu njortu waaw ah, yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def gërëm mbokk yu tedd yi nekkoon ci wàllu teknik bi ñoom busir yi ñoom Moussa ci ñoom soxna Xadijatu Jaase ak mbokk yu tedd yi mu ko bokkal yépp ñoom Mor Ñang fa tabarakallahu ñoom Amadou kante euh, macha allahu taala Mamadou Mbay Garmi ñépp yal na yàlla bokk dimbale ñépp yal na yàlla bokk taxawu ñépp yal na yàlla bokk defal jàmm ñépp hada wa billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fi amaanillah